Ah, doon mbër la boo xam ne kenn mënu ko calculer yombul calculer te dafa am ay qualité yu am important ci biir bëri ndax dañ na àdduna li nga war a njëkk a jàng mooy béy na tey kenn du ma daan dafa am solo nit man ko dindi waaw na tey kenn duma ma daan ñëw taxaw dëggal sa bopp doo def lu lay daane moom loolu daf ko mën ñaar mu doon koo xam ne day défendre ba pare riposte parce que daanee fi ñu bëri. day songu de. nga xool ni muy bëree nga xam ne day bëree ak xel aussi. Mhm. ak calcul boo xoolee comme maam moo Yékini Senior da nga xam ne kii day calculer bëri. kon yow d'accord ci ñuy wax ni défenseur du mbër bi attaqué. non day day riposte du attaqué mais day riposte. day riposte li muy su gisee bunt day dem. waaw mu ngoog. Mhm. xam nga mbiru défenseur mooy ki xam ne day défendre rek du mhm. bëri. mais boo leen doon bëree yow faa koy jaar kon. man fi ma koy jaar. man fi ma koy jaar su ko waxee après mooy bëri moom day xam loolu. amoo dama xam ne dama bari ay bunt yoo xam ne xam naa ne saa boo fa jaaree am naa fa opportunité yu bari. ci parce que benn dafa am. Lac 2 maa ko daa xeex muy benn ñaar ma daax ko bëri. yaa daax ko bëri Lac. Lac ah. suñu bëree du benn sax. <laughs> du benn. Lac <laughs> dóor Babacar Diallo bi mu ngi koy dóor mi ngi faas. Lac lu muy xeexe benn gauche uppercut loolu lay Batika Babacar Diallo. waaw say naataangoo la ñu woon écurie Fass. waaw samay grand lañ may say grand lañ am na koo xam ne bi mu ko ci dóoree dañ ne Lac dafa takk jaaro te takkul dara loxo bee xor rek. waa loolu c'est normal parce mbër moom. mbër dafa war a am loxo bu loxo loxo bu diis. Mhm. c'est important. Mhm. mais tamit moom moom moom xam na bu baax mbër yi muy tànn de. parce que yàgg na ma bëgg ka lool combat bi mu jeexee lak mënagul am combat ba léegi awma combat mais pour pourquoi pas mu mu wax ci Forza rek benn wax. la doo ko dégg. doo ko dégg. waxoo tudd la nu muy tudd ko bëggul dajal doo wax ci moom. lan moo tax bëggoon a dajeeg yow lan lay bañ ci loolu kañ moom moo ko war a tontu mais man xam naa ne du gaaw wax ci man. kon danaa raw. raw. Ah. làmb amul raw. làmb mbër yu mën a bëri rek sama làmb boole mag moom moo tax nit ñi di ko wax. da kay neex mu jël neex ko mu xaar li mu bëgg a xaar. lak bu xaaree leneen yow kan nga jàpp ni sa adversaire la. bari na. limal ma. bu la neexee xanaa nga ne booy Niang. Boy Mouhamed Faxal ak Forza mi. Hmm. Boy Niang. Hmm. xanaa seetaanoo bu Niang Sa Thiès. waaw combat bu technique. Boy Niang baaxul ci Géant de. Euh, mais Géant dafa bari façon. ah loolu de am na moom. Géant dafa bari façon. te gis naa ne fan yi yaa ngi laaj Boy Boy Niang li nga koy laaj sax laajoo ko laajoo dama ko bëgg trop lool. parce que dañu war a bëri ala ñoo xam dañu war a bëri xam nga lak sax man nekk fi di ñoom man mbari mbari li tax ñuy rosu man dama jaaxal man damay toog sax di poser question pourquoi mbari bëgguñu bëri ak man lu tax loolu ñu war a bëri ak man tax ñuy daw deuxième chaque jour dañuy dem ba sës rek doo ko jël loolu dama koy poser ak Malick Niang sama combat ak Malick Niang lu a nekk la komba boole nañu bu baax macha allah. gaa yi ne moom sa potentiel adversaire instant bi Malick Niang la pare naa pour bëre ak moom de. xam nga ni combat boobu làmb jooju làmb ju neex la. dóor mu daanu moo koy jeexal. non non non non. doo xeex bu jour boobu. ka mool du ma xeex man man maa bëri saa xeex. mais kon koy day day. mais dañuy xeex bëri. ñaata mbër nga dóor mu daanu yow. man ah. je pense que benn laa dóor mu daanu. waaw. Ah. Hmm. dóor fi ay mbër bañ daw. moom mu dóor fi ay mbër ñu ñu xam nañ xamul. waaw mais moom day ñëw ñu bëri rek ñu xeex bëri. loolu mënta ñàkk la xamoo dañ naan déel déele bu. mais moom nag neexul a bëri moom dix personnes lay xeexal. waaw loolu ay waxin la rek. ah moo ko wax de dégg nga bu bu xeex ak Ama Baldé la ñu woon si biir <laughs> ah, la woon de. Hmm? waaw kon dix personnes mënul xeex dix personnes mosul dugg si biir làmb gaay tegal ko dix personnes kat dëpp nekk lañ nekk dañuy bëgg si biir géew bi ñu defante yu baax mu jee xeex xeex bu neex. Mm-hmm. waaw kii daan daan. mais moom daal bu ñu la ko àndalee. na nees. nees yow nees nag ko yeewal si nelaw da jël forza bi ko jël. ah yow nees daa mosuma gis nees tiit. ah koo gis mu tiit nees maa ngi rappelé wu avant may jël paka la Pape Dufal bëggoon na sama combat ak moom mais ba nii ba sànq ba tey kenn mosu wax lu la. Mm-hmm. du ma jël. du la jël. Mm. am na benn mbër boo xamante nag ba nga daanee Ablaye Wade. ba léegi da koy topp muy Yékini Junior yow ak Yékini Junior seen combat dafa ñor wala ñorul. dama ko topp de mais xam nga am na combat yoo xam ne gars yi ñoo koy bëgg sama combat ak Yékini Junior dafa yàgg gars yi doon ko dox mu yaaxoo ci moom te ba tey gars yi bàyyiwuñu mais te moom maman bi amul lay amul fu mu jaar. am bu doon na néeg la tey gi am bu doon ci meen néeg lañ ñu tëj. Hmm. amul planteer bu mu tëbee. xanaa jàkkaarloo ak man rek moom moo des léegi li tax moom ba ba léegi moom parewul pour jàppaarloo ak man man lool daf ma yëpp dafa war a ñëw bëri jël Forza ñu bëri fi mu toll loolu dafa loolu dafa jot. Yékini Junior dafa mer gaynde gu mer la. gaynde gu mer waaw. ni mu jëflanteeg tafaatin fi géejawaay. Hmm. mer boobu bëgg na ko mu koy yebbi de. dama amoon sama benn kilifa de ba ma dégg mu koy wax nee na mer muus de neex nag ndax boo meree te muusoo amul njëriñ. est-ce que boolewul bëgg naa na nekk. est que boolewul mer ak muus. <laughs> mu xam naa moo tax mu may teggi boobu ba léegi rek. ku boolee mer ak muus moo xam naa damay teggi rek. mais moom fi mu toll moom li baaxoon moom te raisonnable ci làmb mooy que force ak Yékini jor combat boo xam ne dara mën ko dindi. <laughs> waaw kon daal dafa mel yow bari nga ay adversaires yoo xam ne mën ngaa bëri ak ñoom. si yoo xam ne dara mënul man mënuma wax ne mënuma bëri ak ñoom ñoom mënuñu ko wax. <laughs> Garga Mbossé tamit dégg naa la ngay wax waxam. mais combat boobu macha allah. yow daal kon ñi ma la tuddal ñëpp macha allah yow ak ñoom. Ah, dafa mel lam yaa fi ëpp adversaire instant parce que xam moo tax maa ngi jégal xam moo tax. Mm-hmm. am na combat yoo xam ne yow da boo ko fi dindee rek nga fa mënul teg dara. Forza tey mu ne bërëb non non ñu ne ko euh, Garga Mbossé mu ne non non Garga Mbossé na jaari feneen léegi Forza fan la ko teg. dama koy dégg ci mbër yi dañu leen diw ñu naan non di ko sous-estimer ak yooyu noonu amul njëriñ waxal li fi ne mooy que pare nga pour bëre moom parce que dañu war a bëri wala boo boo ne du ma ak moom nga teg argument yu tax nga doo bëri ak moom. pare nga pour Garga pare nga pour Yékini Junior pare nga pour Malick Niang. waaw pare nga pour boo Niang tamit. pare na Sa Thiès ah mais Sa Thiès pourquoi ma koy bañ Sa Thiès mu ngi fan la daanoo waat ci ci kii. ci booy ñaar ci Boy Niang te aussi combat bi bëreew ko ci ñàkk jom ak yëpp xanaa lenn rek naan bëri na ko ci juum. mu ñëw aussi mu bëri mbër bu am technique mbër bi calculer ko daan ko ci calcul. Sa Thiès de bërëm lu ne lay def ay bëtt ñu ko. waaw mu ngoog dóor ngàdd day ngàdd. waaw pare ñu loo ci wax la dul pare na parce que mbër la mbër bu mat mbër la am na ay qualité yu bëri te aussi làmb ji bàyyi lañ ko xel. mu daanoo tamit taxul ñu la ko cam. kon nag bëri moom dafa am solo buñ ma ko joxoon tey ma lekk avancé am. Eh, Forza nag kii moo pare nag li naan da pare waaw kam kan. Gora Sock. non man ñooy duma ci wax. <laughs> duma ci wax. Mm. mais jombul nag làmb mën nañu boole ci kanam. Mm. te bu keroogee dama koy nangu te maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen yoon bi ba ñu mën a ñëw ba ñu mën a bëri suñu biir parce que làmb war a bëri ay ponkal. Tyson 2 di nga bëri ak moom. Tyson mm-hmm. ah bokkuñu écurie de mais duma ko dëkk ci làmb. Mm-hmm. duma ko dëkk ci làmb xam nga man sama wax day leer. te nit bu fekkee da nga nekk ci loo xam ne boo ci waxee fii ba fii ba dix ans dañ la koy tegal loo ciy wax ñan leer du ko dëkk ci làmb mais aussi bokkuñu écrit fu ñu dëkk lañu bokk te moom xaw ma ban position la nekk te làmb sport la làmb sport la mën naa wax ne du ma moom ñu woo ko laaj mooy dama bëri dama war a bëri Forza. pare naa pour bëri Forza kon aw ma lu ma wax. mais du ko dëkk ci làmb. su bëggul bëri man tamit bëgguma bëri ak moom. parce am na lu ñu boole. mais bu paree pour bëri ak man aussi man damay pare pour bëri. dama lay laaj ci benn xale rek après ñu dem ci seen écurie écurie Fass. Coen laa lay laaj. waaw. noo bokk ak moom. ah kooku sama fils la Fafam sama mag la. waaw. mu mel ni ñoo bokk benn wadd dubul fee dëkk bari ji dëkk Sambène. wadd la sant. wadd la sant waaw. papaam bu ndaw nga. ah papaam bu ndaw nga. waaw papaam bu ndaw nga noo ci bëre. ah macha mu ngi ci yoonu làmb mu ngi ci yoonu làmb bu baax. seeti woon nañ ko mu ne roi des bi dañoo bëgg yow nga leen ko. Hmm. bariñ waaw loolu yéenal rek mooy li am solo ci àdd mooy am ci la ci àdduna parce que tey gi ma ne la ndox baa ngeen ne yàlla nag ma ci njëkk a naan terewul bu ma ci naanee pare nga naan ci. la mooy yéene mu rafet rek. amaana sax moom mën na see jiitu. yàlla rek moo xam. dëgg la li am important mooy dama koy wax toujours rek ma ne ko góorgóorlu nga nekk say entraînement gëm sa bopp xam ne làmb ji kenn moomu ko bu mu laa dugg si làmb ji tamit loolu laa ko daan wax <laughs> kenn moomu làmb ji. waaw fàttali nga ma sax kombaam ak Valdo. Hmm. gars ñu ngi ko doon coow kombaam <laughs> gars yi ñu ngi ko doon coow mais nag Valdo moom yéen ñaar la teg bët nee na bu ñu waxee arbitre bi sifflé Forza te xonk lay bët di nappaate. Hmm. kon moom Valdo day xool samay nappaate ak yooyu non boo yooyu moom du leen tontu moom. <laughs> moom ak Coent si moom ak Coent. waaw est-ce que dina bëgg Valdo.